daleen ak jàmm ba di kenn ci ñiñ tegoon loxo ci faatuk Iba Thiam ca Almadi ci ab soirée boo xamante ni daam Amar ak ay xaritam ñoo ko organisé woon yoon bàyyi na ko mu dem ñibbi këram ba nag doom la ci Mamadou Ba moom mi nekk président fédération sénégalaise de tir et de chasse moom Luti aussi nekk na ku jege lool famille Youssou Ndour roi di mbalax ndax kat jabaram du kenn ku du rakku ay Aïda Coulibaly mi nga xamante ni moo nekk jabaru Youssou Madjiguène Ndour ñoom ñaar sax jot nañu am benn doom laata procès fan yi nu génn bu ñu sukkandikoo nag ci suñuy xibaar ba ak jabaram ji dañoo bëggante lool ba dof ba nag tey ji lu tax ñu bëri ci askanu Sénégal xam ko mooy bokk gi nga xamante ni bokkoon na ko ci soirée bi nga xamante ni ca la Iba Thiam ñàkkee bakkanam te kii di Dame Amar organisé woon ko ñu sukkandikoo ci ay jege ñaaleem nag ba nekk na nit ku honnête correct waaye tamit nekk na nit ko xamante ni xol bi dara nekku ci loolee nag li koy laata muy faatu Lodiba moom moo fa njëkk ngir doon ko wàllu jot na ko sax defal ay massage cardiaque waaye nag mu mel ni jaam ak pexem yàlla ak dogalam daanaka sax looloo taxoon mu xaw a mel ni ku perturbé wu ci jamono ji nga xamante ni gardé nañ ko à laaj ba mu faraloon sax di samp moo di lan moo tax ba force de l'ordre yi daat koy teg loxo ndax kat li mu def moo di dimbali ku doon waaja ñàkk bakkanam te sonn lool naam taxu ko woon siiw nag waaye scandale ñàkkee bakkanam tax na ba turu Iba jamono ji ñëpp xam ko ci Sénégal ginnaaw bi mu faatoo bàyyi fi ab polémique bu rëy lu jëm ci enquête bi nag brigade de recherche bu feder bu def na seen kéemtulaay kàttan ba arrêté ñenn ci ñiñ jàpp ni ñoo waral ba Iba Thiam daal di ñàkk bakkanam ci soirée boobee ñoom ñoo ñu jàpp nag ñoom ñëpp jot nañ leen a defeeree waaye nag mu mel ni Louty Ba ak Amadou ñaan mi di doom ci Julde Niane di patron Sonam assurance di xaritu Dame Amar ñoom ñaar rek ñoo ci jot am liberté provisoire